képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité ba tey Touba Mbacke ñuy nag xaar màggal Touba waaye laata mu yegg si nag ñu ngay def lu ne ba yëfi daal di yemb kilifa yi foofu nag yor administration dañoo sax tàmbali li ñuy wax euh, bay màggal ñu nag fexe ba jublu ci ñu gën a respecté lépp engagement euh, rawatina nag ñii di ay service foofee lu ñu daal bëgg mooy yëf yi daal di yemb ñu ne gën a bàyyi xel lépp luy ndox ak assainissement foofee ca Touba Pape Balla Gueye dajee àllarba gu ne loolee moom moo nekk taxawaay bi nga xamante ne gouverneur bu yees bu Jurbel bi noonu la fas yéene doxalee ngir ñu daal di amal organisation màggal gu mucc ayib wàllum ndox mi ak assainissement bokk ci secteur yi gën a am solo directeur bu OFOR di Alpha Baye Guèye di dalal xel yi te xam ne ne daañu gën a yokk dispositif yi ak lu tolloo ñeent ci forage yu yees yoo xam ne am na ci biir dëkk bi. parce que daaw wax dëgg yàlla yàlla defal nañu loon ndimbal ba nga xam ni bon jafe yi ñu daan am amuñu ko woon suñu ñëwee yokkaat encore quatre forages defaat encore douze mille mètres cubes wax dëgg yàlla war nañu indi ndimbal bon beneen problème bi nag nga xam ne dañ ko war a nekk point de suivi mooy réseau bi. naataangoom bi di docteur Ababacar Mbaye directeur office national de l' assainissement du Sénégal muy xamle ne donte amoon nañ ay jafe-jafe ak bassin bu Daaru Rahman bi mesure conservatoire yi nag jamono ji lañ ci bëggoon gis nañu ko. li tax mu wàcc parce que dispositif bi ñu fa def bi nga xam moo fa nekkoon ak li ñu yi nga xam ne mooy li nga xam ni def nañ ko ci ren mbalit dañ ci dañ loolu tax na ba nga xam ni ndox mi su ñëwee da ni mu gën a gaaw rek day dem mu dem fi nga xam ni mooy bassin Darou Rahmane visite de suivi bu jëkk ci ouvrage hydraulique yi gouverneur bu Diourbel di Ibrahima rafet lu na li nga xam ne gisagum na ko mais yooyu lañ xam ne moom lañ tënk mais di rafetlu également euh, déroulement visite bi di wax rek ne un suivi sera di ñaan suñu borom yóbbuñ ci jaam ci dëkk euh, ba incha allah matuwaay yi nga xam ne moom la service technique jël